Assalamualaikum mbokku téléspectateur bu tv ñu ngi leen nuyu aksa seen émission njàngat ak sa wolof euh, Abdoulaye Cissé euh, allah ñu dalar ko fi sunu plateau sëriñ bi Cissé ñu ngi lay nuyu. waaw sëñ Bamba ñu ngi lay nuyu di leen fal di fay di niru nuyu mboolem seen mbokki internet yi di leen jaajëfal. Euh, sëñ Cissé tay ji macha allah réew mi yëngu na de. <laughs> yëngu ndax lan. waaw yëngu ndax actualité politique. Mhm. Hmm, ñi ngi wax liste liste Dakar. Mm-hmm. Yewwi Askan Wi ñi mm-hmm. ci dolleeku ak ñi ci bëgg wàññi ak ñi ci éliminé duñ mm-hmm. euh, def rek lu ci waxtaan bi ah bismillah ay ca daal jaajam mm, euh, bi ci njëkk ñu ñu ko ak euh, wàllu politique muy coalition Yewwi Askan Wi fi mu nekk nii pëcc xoo yu mbaaloo bëri na de bon mënul ñàkk pëccëxoo ndax fi nga fekk coow rek yaakaar naa fa la yaakaar nekk ña nga xam ne amuñ nit ñu ko mate doo fa dégg coow. Mm-hmm. ndax euh, bu coow amee rek dafa fekk ñu bari bëgg euh, yeewi askan wi am ay pàcc politique yu bari yoo xam ne ñoom ñoo ko toggale maanaam ay parti politique ñoo ko composé ñu mel ni PASTEF taxawu Dakar ah, ay coalition le peuple jeunesse aux citoyens ak euh, ñu bari daal ay coalition yu baree bari yoo xam ne ñu ngi ci. ñooñu nag bi ñu ay avenir bi ñu bokk ak yooyu ñooñu nag bu ñu lëkkatooyee ba waajal bu doon biir Pastef rek ñu war a tànn coow mën na ci am ndax euh, bésu tànn moom ku wax tànn rek wax éliminé ba tax na buñ bu doon Pastef rek danaa bari sax pëccixoo waxantuma la ak bi mu ñëwee nekk yeew yi mm-hmm. bi mu nekkee Yewwi it ñu jékki-jékki ñoom it ñu daal di lëkkatoo ak euh, wàllu euh, mooy fusionné ak wallu loolu tamit day daal taxaat bu fekkoon ne cër yi dana gën a wàññeeku ci foofu loolu moo waral coow li waaye li leen jig daal mooy ñu def ko ak responsabilité mm-hmm. responsabilité boo xam ne ñu fàtte seen bopp xam ne quatorzième législature bi mm-hmm. mën naa bañ a def ñaari at li tax ma ne mën naa bañ a def ñaari at mooy benn leader ci ñoom muy Sonko wala xalifa wala Karim Wade wala ku mën a nekk mm-hmm. su fekkee ne 2024 dafa ñëw nga gañe da nga am possibilité tëggaat yeneen jongante. ci ci ci loolu sax dogu doguma la muy muy kaaw xalifa Sall. Mhm. maa ngi dégg tey si journal ñu ngi ñu ngi dal ci kawam. Mhm. naan xalifa ak ak dayo bi mu am ci wàllu politique. Mhm. si c'est loolu nooy ban jàngat nga ñu ci andil. bon xam nga li ñuy wax rek ku boot bu kii xaj baw la ñoom ñëpp ku leen tànn loo woon dana ay kàngam rek la ku fa éliminer nit kàngam nga éliminer xam nga nag parti politique yi man li ma gëm mooy dee dee wareesu leen a peese dañ leen a war a wàññi dañ leen a war a wàññi maanaam seen lim maanaam parti politique wala mouvement bu nekk ndax yow sàng li nga fi lim ni xaw na takku de waaw takku na moo tax ma ne dañ leen a war a seen lim maanaam pàcc bu ci nekk ñu xool lan nga am ndax yow téeméeri nit ñoo topp sa ginnaaw wala junni nit wala wala téeméeri junni nit yàlla xam Pastef dayo bi mu am wóor na ne taxawu amu ko taxawu Dakar dayo bi mu am wóor na ne parti euh, docteur kii bi nu mu ti euh, kii boobu nu mu tuddati kenn ci ñoom Aïda Mbodj amu ko wala wala wala wala wala wala ñeneen daal ñoo xam ne ni amuñ ko moo xam Moustapha Guirassy wala yooyu amoo dayo boobu léegi nag dañ la kenn ku ci nekk na nga toll noonu nga ci war a mën a taqee ndax bu fekkee ne yow tey danga am téeméeri nit rek ki am junniy nit moo la war a ëpp député loolu mooy dëgg am na ci ñoo xam ne nag suñ leen gam le wax dëgg yàlla am suñu leen xàññeeb cër dañoo war a xam ne rek bu génn yoon jeexul waaxisul du jeex. mais tamit nag nga foog ne kër créer wàllu créer mouvement ci ci réewum Sénégal créer parti politique defe naa mouvement rek damay def parti politique. Mhm. loolu état bu Sénégal la moo ci war a jóg wala gars yi ñoo war a xool ni ñuy tànnee seen i. bon askan wi ñun ñoo ci war a jóg man coalition gëwuma ko man bu ma sañoon coalition yëpp ay tas ñu demaat nañ daan jëmee. kenn ku nekk demal sa bopp mais askan wi dara la de. foofu laay waxee mais fii ñu toll tey ci Sénégal. am mhm. président boo xam ne yaa ngi waroon a def ñaari mandat di jéem a wuti ñetteel bay wax sax naan Elimix kooku dafa jar nit ñëpp dal di jokkalante ba mhm. jëlee la fi ndax suñu ko gañee ci élection législative yi ngañaay lu rëy mhm. dootu ko bala nga ne naam ne fa loolu mooy li nga xam ne mooy mooy dëgg mhm. te ñu bàyyi seen pëcc xoo yi ngay wala bokkoo ci rek di ci xëpp suuf ku mel ni sëñ Cheikh Bara li maa ngi ko dégg fan yi muy saboote daanaka teew koo xam ne bi nga xamee ne àndagu leen ak wàllu bi ne kaay leen dem ci département bi kilifa yi ngay gis ñuy wax ni yëpp ku nekk ci ñoom bu nangu woon am fitu dem sa dépa sa département coow du am mais national bi lañ bëgg a xëccoo national bi nag boo fa yegsee ki la ëpp mbooloo moo fay nekk. mooy li dal tey non national bi mooy li xam nga dafa am li ñuy wax list boo xam ne raw gàddu gi la. Hmm. maanaam tey ñu ne dakaar juróom-ñaari département de Dakar juróom-ñaari député moo fiy génn mais juróom-ñaari député bu fekkee ne yow da nga fee am. mille électeurs APR am fi mille 1900 électeurs wala 1999 yow yaay raw yaay jël gàddu. Mhm. waaye li nga am deux 2000 yooyu. Mhm. nga am amaat feneen mille amaat feneen mille loolu bu buñ ko dajalee. Mhm. ci la ñuy xoolaan ñaata député nga ci war a am. mu ngi mel ni deux mille 2017 bi nga xamee ne PDS dafa gagné euh, département Mbacké am juróomi député foofu. amaat benen département bu mu wat dama xamatul ban la ak yoy nga xamné ne ba mu ban ko jural luma jurom ñaari député bi mu national bi lim dajalé yépp daf ko may mu am fukki député ak jurom ñet national bobu loolu ñu jëlé ren nak Macky Sall dafa wañi la daan nek ci raw gàddu gu defee né maam ci local yi ni mu démé département yi fa la wara mëna jëlé lu bari dal di tas mbiri fekk na wul won galgal bi nga xamné mom la wa yeewoo wa walu lekkato def ko ndax loolu lim dafa fossé ay calculam ndax li mu fausé ay calcul am mooy wallu ak yeew yi ni ñu defee fusion voilà nga xam ne léegi dañuy dem fu mel ni Mbàkke nga xam ne wallu moo fa moo amoon 29000 voix euh, yeew yi moo amoon 29000 voix ci élection yi passé euh, wallu am 21000 20000 euh, et quelques voix Benno Bokk Yaakaar am mille voix léegi foofu li ngay xool mooy ñoom ñaar yeew yi mënoon na rek maa fi gañe woon am fi mille voix daal di dem ak yooyu mais mën na ci am ngaañ wala mbett léegi li gën a wóor mooy nga daal di lëkkaloo ak wàllu bu ngeen lëkkaloowee yéen ñaar ci foofu département bi bu ngeen ko xasee gañe ba teg fi loxo yéenay jël juróomi député yi mu des national bi national bi kenn ku ci nekk dem ak sa bopp te national bi sax ba tey mën nañ ne ñoom am na nuñ ko mën a séddowaat ndax kenn ku ci nekk am na foo mën a demaat ñu dugalal la fa sa mbooloo ndax damay gis ku mel ni docteur Abdoulaye ñaan Sonko la gën a amal euh, affinité te teewul moom ñu ngi ko dugal mu nekk 15e wàllu loolu yëpp danga koy gis xam ne ñoom lu ñuy def nii du lu ñu tatone lu ñu lu ñu lu ñu xalaat la loo xam ne lu mën a dolli Sénégal yóbbu ñu ci ndam li ci des nag mooy gore parce que kuñ daan jox ku mel ni sëñ Cheikh Bara Dolly nga xam ne yaa ngi nekkoon député ci 13e bi ñu def la groupe parlementaire bu ñu la defee groupe parlementaire weeru jot yaa ngi jot luy tolloog juróom-benn million ak nangam loolu teraanga la joo xam ne ñu ngi la ko jox joxuñ ko sa yeneen moroom ñu ñëw ne département bi nga ragal xam ne boo demee doo am booba fusionné guñu coalisé guñu ñoo ngi yeewi nga daal ne ci national bi ngay dem ah sa rak xañ na mi ngi doon doog a bàyyi. déet non xam nga ku mel ni euh, Cheikh Abdou Bara Dolly dañ ciy taxaw parce que moom dafa bëggoon a dem bokk gis la nekkoon bëgg ànd ak Yewwi am kàddu yu doxoon ci digganteem ak PUR ba tax ñoom ñu ne duñ bokk ak moom coalition gis nga li yàllay def moo tax nit ki ak loo ko ëpp ëpp doole ak lu mu kii kii rek respecté ko rek te bu la baaloo it nga baal ko loolu ndax tooñ bon na aay na waaye baalu it kuñ baalu nga war a baal ñoom baaluñ ko waaye gis nga dem na ànd ji ak wallu bi mu ànd ji ak wallu xamuñu woon ne ñaari coalition yi danañ bokk bi mu demee ñuy wax kan mooy jiite département bi mag ji sëñ Seex bañ daw jàpp na ne ñoom amuñ sens ci gañe foofu ndax yeewee leen ëpp doole wala far nag ñu coali ñu fusionné ak ak ak ak ak ak ak yeewi ñu daa bi ñu xoolee ñu ne kan mooy woy di jiite département bi ñu ne déet ki ñu ko xasoon jox lañ koy jox muy wër wërsëgam muy Cheikh Abdou Bara Dolly euh, di jàmbaar man faralu ma ko lool bari na ci yoo xam ne ànduñ ci wala yooyu bu ma doon am ku may tànn ñoom ñaari yooyu sëñ Cheikh ay gënal fuuf ndax ci moom laa ëpp weegal mais nag am naa respect ci moom bu baax parce que nit ki dangay am fit am fula lañ ko xañ fële ci yooyu bi mu ñëwee wàllu jox na ko tey mi ngi nii wàllu ak yeewi coalisé nañ moom moo fa jiite coalition bi te incha allah yàlla dana ko may ndam ndax ku mel ni man mii fi ñu toll nii élection yi sama yoon newu ci woon dama ne woon duma dama mere woon yeewi mere wàllu man waa sëriñ boobu laa naroon a votel wala wala aar muy ñoom ñoom Thierno muy ñoom Thierno Bocoum ak ay Abdourahmane Diouf mais bi ma gisee ñaari coalition yooyu daal di fusionné dama dellusiwaat fas yéene wàcc ak na ma daan wàcce ay fan yu néew bu élection bi campagne bu ubbee maa nga Touba waaw fas ca taqrib moo tax <laughs> waa ah non def ko jar parce que réew mi moo ko jar xam nga ne ñun amuñ dara lu ñuy xaar ku ñu tàbb député wala dara waaye li ñu am ak néew muy suñu am am ak suñu man-man fas yéene nañ koo def ci élection yi ngir yeeweeg wàllu am ndam. waaw mais nit ñi xam nañ ko man masuma toog di seetaan élection yi fi mas a jaar yëpp man defuma politique dugguma ci benn parti politique saa yu élection jotee damay xool. ñi nga xam parce que dama yaakaar ne fekke muccut am réew boo ci nekkee war nga xool li koy doxal man gëwma nit falu ñu jox la lépp man dama yàgg contre lu mel noonu te maa ngi ñaan nit ñi ku mën a falu 2024 nay Karim Wade nay Sonko ku mën a nekk bu ko kenn jox ma majorité écrasante parce que doomu aadama suñ la wax yàggee wax yewa yewa rek dangay dem ba jàppee sa bopp yàlla ju ndaw wëlbatikuwaat di fontoo nit ñi te nit ñi dañoo war a dese doole ji sa yo toge nga xamne dañ la fal falo sa bop deret nga meuna def <laughs> ah dëggantaan buñ la parce que bo bo satché wala nga tok setan ba say wa keur satch kan nga satch alalu askan leg bu fekkee da nga am majorité écrasante comme niñ wax noonu da ngay mbuxum jënd ñi gerñé bu ko défé ki la feñ wala ki la bëgg gis nga am loko jox ak ask alalu askan wi rek ñoy dem ñi nga gis ni hôpital yi ñak ay lal wala ñàkki jumtukaay ba ñuy grève wala ñu naan kii dee na loolu lu ko waral lu may ministre yi ngay fekk lu mat fukki oto nekk ay kër yu dul jeex am ay compte banque yooyu alal yooyu ñu sàcc dugal seen compte banque yi ak ñeneen ak ñeneen ñu dul moom ak guerre bi am ci diggante entreprise yeeg yu demee noonu yaama marché yaama neex gi looloo tee dox euh, réew mi dox